chaque jour ma fàttali ko ni ko moom xamul bis bi muy bëre tey bu génn bu gisee waa Pikine nii ñu def te ñëpp xam nañ ni Sokh ñàkkul jom ñëpp xam nañ ni Sokh Baay Faal la amul tànk ginnaaw yàlla na yàlla def jàmm ba le 19 juin man ak Franc bañ dugg ci arène nationale bi. toujours ci communication am danaan Sokh mii bés bu arbitre soufflé génn suñu diggante ma daw jàpp ko daan ko moom loolu la def ci xelam est-ce que yaa ngi bàyyi loolu xel. man sama moroomu góor bu ma yabee rek daa fekk ma tëdd di nelaw sama moroomu góor bu ma yabee daa fekk soq di tëdd di nelaw mu leer ko bu waxee soq du dégg muy wax ndax day nelaw mais bu ma yeewoo fireeku taxaw jàkkaarloog suma moroomu góor dina tal leneen lu dul lii muy wax nii loolu wax la rek bu la 19 juin laa wax li ma waxoon laay waxaat bu soq simmeekoo takk ay jaajam daw romb Franc Franc sigi xool ko Franc dina tal leneen lu dul li muy wax nii waaw sopp sama laaj du yàgg rek parce que Fara dañ gis ne mbër la boo xam a ni tey dañ koo gis ci lutte simple mu imposé wu nekk boy town ba ràññee si ba am fu mu yegg tey ba tey si journal bi experts yi wala ñi xam lamb yëpp dañ ne euh, sopp na prôné xeex bi contre Fara yow lan ngay tontu si loolu non loolu moom loolu moom Boucar loolu duñ ci focaliser wu de xam nga lu tax da nga ni lutte avec frappe bi dafa am taxaw dóorante ba bërsët bee da ngay léwétoo boo ëppee waaju doole teg ko sa bopp di ko buma bii amul loolu bii bu tegee loos bi dama koy duma ba mu tëdd te loosam boobu la yaakaar di ko wéer nit ñi di buux man soq du ma ñooñu te ñooñu duñu man li wér te wóor mooy li wér mooy bis bii may bëre man ak Franc bëgg naa ko torop te man xam naa ne lu ma ko bëgg bëgg bëgg bëgg Pikine waaye ma ko gën a bëgg tey preuve bi leer na ndax ñëpp a ngi nii taxaw bàyyi seen lépp ngir soog pour une première tey deux cent pour cent Pikine lañ wax waa Pikine yëpp bootu sa ginnaaw tey dooleel la li yaakaar naa ne mosuñ ko gis Pikine mbaru Pikine li bëre mag ñi ndaw ñëpp mobilisé wu dooleel ko kon sas bi lan lay doon ci yow est-ce que du 100 pour lañ njëkk def cent pour cent bi bañ ko njëkkee def sortie bi ci kan la woon Boy Niang ak Garga Mbossé la woon première sortie cent pour cent waa Pikine duy stade bi ba mu fees dell Boy Niang ni leen trois points fu mu nekk ma jëli ko kon pourquoi pas man soq trois points aw ma lu ma ciy xel ñaar trois points la ma waa Pikine laaj c'est ku ma ak ñoom sax deux points trois points lañ ma laaj te du manqué virgule incha allah ah ñaar bu parce que laata ah, man enjeu jaaxaluma. Hmm. parce que dëkk Pikine juddoo fi yaroo fi fooyee fi. man ñi ma xam dëgg xam nañ ne sama morom musuma duuma ci ma xam dëgg la wax nag. Pikine ba Pikine daj xam nañ ne dama fi marqué sama empreinte aw ma sens interdit benn koñ koñ yëpp laay fréquenté ñëpp samay xarit ragalu ma dara wuy liyan ma dégg noonu sa nga ne da ngay jàkkaarloo franc bëreeg moom ba dem ardo da koy dëggal wala da nga ko bëgg nax wala looloo nekk si yow non man man li may wax chaque jour rek taalibi suñ Touba la aw ma pour naxante kenn surtout loo xam ne ci wàllum góor ak góor góor ak góor waruñu sekk naxante man dama dem préparé wu ji ba xam ne man pare naa man soq teg Pikine waaye xam nañ ni soq pare na su ma naree liggéey nag ba pare ñëw di naxanteeg franc ci arène nationale bii kon nañ ma génnee ci làmb ji tekki sama sër sama nijaay jibi joolaa bi yóbbu moo Europe moom moodu moodu man dama ne Eumeu Sène dafa am lu mu wax ba mu koy wax loolu du tey waxoon na ni am naa ay raq yu saf sàpp yu nekk ci ginnaaw yoo xam ne war nañ leen a mën a produire ñu yegsi kon tey bu gars yi amee ci ñun yaakaar produire ñu bañ yegsi ñun loolu dañ koy wone des na benn question des na Franc da ngeen mës a dëkk xam nga ko mës ngeen nekk dagg dégg naa nga ni yow sa rek ak moom yéen a ngi doon bokk benn kër bi nekk looloo tax nga ñeme ko wala comment dee. non non non loolu moom parce que xam nga lu tax Franc dafa topp ay at dafa topp ay at pour bëreeg Sokh fuñ dékkee Franc micro mu ne nañ ma jox Sokh ma ne ko xëy na yàlla daa dogal war gu ñëw bëre mais bis bu yàlla waree dogal ñu war a bëre dinañ bëre man ak yow ba jotee pour ñu bëre man ak moom. maa ko fekk tribune arène nationale ñëpp di fekkee ma ërtal ko ni ko gars yi wàccal ñu bëre topp ko fu mu nekk ma fekk ko fa pour bëre ak moom parce que dafa jot li yi di bàyyi xel ci mbër yi bàyyi ma ko xel dijj ak rëy man loolu jaaxaluma parce que Pikine laa juddoo yaroo fi màggee fi di bëreeg Eumeu Sène di bëreeg Boy Niang di bëreeg Ama Baldé di bëreeg ñoom Jara ñoom Valdo ñoom Tyson 2 su amee poids lourd bu ma jaaxal ci làmb ba may xel ñaar ci moom dama war a tekki sama sër man bàyyi jërëjëf léegi dernière question ñu bàyyi sokk mu parce que li ko gaa yi dafa ñu bàyyi waaw. dañu remarqué ne Franc 10 combats yi am yëpp. waaw 10 victoire 10 victoire. waaw. dañu gis sox bu songoo adversaire bi da koy joxe. waaw. waaw. dégg li mu doon wax. mu gaaw. waaw waaw dégg naa loolu balaa may ñëw ci question boobu. damay profité di gërëm suñu maire. suñu maire maa ngi koy gërëm bu baax muy Ablaye Diop Ablaye Timbo di gërëm suma xarit Isaaxa Diop di gërëm Rama Maki di gërëm Oumy ñoom ñëpp gis ngeen leen fi ñu ñëw toog di gërëm monsieur le maire Jara comprendre nga di gërëm monsieur le maire Ablaye Diop di gërëm képp kuy jàppale Sokh comprendre nga di gërëm Pape Ñambe Dieng suma xarit di gërëm waa Pikine yëpp maa leen di gërëm képp ku ma limul rek sama xel dafa fat li nga wax noonu dégg naa ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax loo waxaat sax nga ni Franc mbëru Franc la nee na Franc nee na nee na yow da ngay maye wet. te Franc combat am ñëpp ay wër ndombo la. mayewul dara. dafa da ko arrangé. yegguñu woo foofu. non a gis wet. da nga naan ma Franc yaa ko dàq bëre. da naan ma Sokh yaa dàq bëre Franc moo tax ngay joxe sa wet bi nit ñi di jaar nga leen di dugal top ndax jël bu nekk daane naa ko mbër ci làmb. Franc musta cabaxal nit. musta mbot nit. musta daw song nit musul def dara. dalay naax di la buux teg la loosam boobu bu la ëppee doole nga tëdd ñi mu ko def da leen a ëpp doole. man xale laa ba pare dama préparé ba nag. mais est pare nga pour xeex ak Franc ci xeex bi yow. waaye dama ni la waxu xeex boobu bu leen wax loolu maa ko ko déclaré mu koy neex mu koy naqari dañuy xeex di nàcc di dem ardu di ñëw. du bataille psychologique sox. bu dee dina ko fa xaar nag laa wax. ah wooteel bu dee Franc dina fa xaar loolu xeex boobu dina ci dem ardu di ñëw xaw ma nag mu metti mu jox ma boppam ma daan léegi léegi so dama lay bàyyi nga woote waaye balaa ngay woote waxoo kenn Franc laa bëgg nga jàkkaarloog moom une minute nga wax ak moom mu dégg lan nga koy wax bisu le 19 juin nga boot nga nga woote am bay bala ah ok nee nga boy Franc Franc yow laay waxal li ma lay wax dama bëgg nga dégluwaat ko bu baax dama ni bis bi nga jël te ko ci say catuwee boo ñëwee le 19 juin dina la rëcc di nga ko rëccu barki maam Seera Fall Baye Fall bi ngay bëreel taalibi suñ Tuubaa xam naa nag xamoo li xew ñoo la gën a dox junni yoon rek beneen affaire bi affaire maa ngi gërëm suma xarit suma doom ndey suma lépp muy Ama Balde di gërëm suma xarit suma lépp muy Boy di gërëm suñu grand Eumeu Sène di gërëm waa Pikine yëpp di gërëm Boston maa ngi koy gërëm bu baax Ousmane Diop Boston borom Espagne di gërëm suma xarit Ibrahima Diop promoteur borom Kajoor production maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm ñëpp di gërëm Thierno Thiam borom teere bokku jëf maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm suma mag Pape Mbacke di gërëm waa kaso bi yëpp ñi ci nekk ñëpp yal na suñu borom indiwaat ci barke yonent bi